promoteur lutte sans frappe la gis ngeen léegi waa kër Idi Thiam yu waa ñu ngi fi toog décentralisé wàllu làmb kon ñun noonu lañ koy jàppee incha allahu rabbi léegi nag mën nuyu sama doomu ndey sama xarit ah xaritu Sénégal ki nga xamante ni nii wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp a ko bëgg muy le très grand guy ci nuyu naa la. borom ñaari montre yi di ma toppandoo ci ñaari montre moom ak Balla Gaye ñoo may toppandoo ci ñaari montre ba sax ci léegi bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla jul ci yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sañ asek borom ndigal di nuyu sama xalifa général maam Cheikh Matia di nuyu waa Canaba Sepp yëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér. ñaata habitants lañ Sénégal. di nuyu sama papa ak suma yaay. ñaata habitants lañ Sénégal 12000 habitants mooy. 12000 la Sénégal def na mais. 12000 ñaata la léegi. est-ce que du 12000 12000. 12500. non non ay 13000. ah 13000 ok léegi 13000 habitants lañ quoi di nuyu sama papa ak suma yaay kon waxal maa ngi nuyu 13000 habitants yi. di nuyu sama papa ak suma yaay di nuyu sama soxna bébi di nuyu sama famille yëpp bàyyi ma kenn maa ngi nuyu suma yaay Wara Sarr. di nuyu suma grand frère nas caama aadama yaare awa mambay Paris bira asan képp ku nekk famille Wally Sarr maa ngi nuyu ñëpp bàyyuma kenn di nuyu bonsoir aux téléspectateurs de la France et de la diaspora sëñ Abdoulaye Diop borom xaas sa xarit maa ngi koy nuyu maa ngi ah. nuyu Serigne Madoune Seye borom tafeex suma xarit mhm. suma confiance suma lépp sama xarit man mi waaw di nuyu sëñ Cheikhouna Seye rakkam moo nee naa ko mooy suma Serigne quoi mhm. di nuyu Anta Seye seen rakk di nuyu yaayam di nuyu mhm. képp bu nekk borom famille borom Madoune sëy borom tawfeex maa ngi nuyu sama benn kilifa gu mag gu nekk Dubaay muy Abdoul Mangane Dubaay muy suma xarit suma lépp maa ngi ko nuyu bu baax di famille Mangane bi yëpp Mouhamed Mangane fépp famille Mangane nekk Abdoul Mangane maa ngi lay nuyu bu baax suma xarit la ku may jàppale ku may woo di ma conseiller la maa ngi ko nuyu a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu suma grand frère Lirou Diane. Mm-hmm. vraiment mooy suñu mag ci géejawaay. li ma waroon njëkkee mooy nuyu ko sax parce que bu ma fekkee mu toog li ma wax mooy nuyu ko nuyu suma grand frère Assane Ndiaye. Mm-hmm. xarit la moom. yow Lamine di la nuyu di nuyu buuba mi fi génne léegi buuba comme li ma ko waxee am. cofeel ci moom. cofeel ci moom du mën a ko wax buy wax da ngay gëm ni kii lim gëm la wax. man noonu laa mel je suis naturel moo tax maa ngi koy nuyu baax nuyu waa fitir bii boobu production nuyu naa la ak euh, Habib di wax ne inna lillahi wa inna rajo rajiun mm-hmm. yàlla moo moo sàkk jàmm te bim ko sàkkee pare tamit moo xam bis bi koy yóbbu bi mu mm. koy indi waxul kenn kañ la ko indi kon bi mu ko yóbbu euh, muy sunu soxna du sunu mag du sunu jabaru frère muy Aziz Ndiaye Ndiaye suma xarit la dafa naa man ñett yoon lañ gisante mameel moom mampenda ñett yoon mm-hmm. mais ñett yoon dem yëpp teranga lañ defal teranga mooy ñëw nañ may defal ñu li ñu war a defal demaat bi ñuy demaat bi ñuy baat defe naa duñ ko gisaat. Mm-hmm. di ko seedeel ni daal li ñu xam ci moom mooy lu rafet di ñaan yàlla. Mm-hmm. suuf tiwaawoon yàlla na sedd ci kawam. Mm-hmm. yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def. ok métti na. Mm, mais nañ ko muñu rek lu métti jàmm rek lay dal. ok léegi ah euh, dama benn question bu ma la bëggoon poser rapidement. Euh, merci aux téléspectateurs de la télévision Futur Média et plus particulièrement euh, celle de Diongante aujourd'hui nous recevons. en direct le lutteur Guigui de l'école de lutte Morfadam euh, l'un des lutteurs les plus coriaces de l'arène sénégalaise euh, Guigui je vous salue et je vous laisse saluer les téléspectateurs de la télévision Futur Média et, de Jongonté waaw maa ngi nuyu waa Louga nuyu ndikku ndikkuloo ñu ko ndikku Sadio Magou maa ngi koy bu baax nuyu sama lonko Dantec nuyu naa ñëpp mais question bi nga posé mm-hmm. c'est facile pour ma tontu ci. Mm-hmm. Lamine dama yàgg ndaam lu umpale. Mm-hmm. xam yaa ma yóbbu institut français may jàng. Mm-hmm. jàng naa at. loolu leer na. am naa diplôme tamit. ambassadeur nga. la bu leer. bu leer te xam nga ok mais. Euh, xëy na yàlla moo deful sama kàllaama di set ci français. Mhm. mais li ma wax li nga wax ni koy dégg. li ma xam ok nous recevons aujourd'hui Gouye euh, le lutteur de l'école de lutte Mor Fadam Gouye Gui je vous dis bonjour bonsoir et je vous donne l'opportunité de parler en français avec les téléspectateurs. moi je salue tous les de TFM. Mm -hmm. c'est parce que ça fait longtemps. Mm -hmm. Lamine Kan. qui a faut évité, parler fort. qui longtemps Lamine qui évitait TFM. Mhm. Même il dernier jour là, tu m'as téléphone. Mm -hmm. J'ai Guigui, tu as évité mm -hmm. euh, Djongente. Mm -hmm. Moi j'ai parlé grand frère Nas. Mhm. Nas qui parlait, qui a accepté. Mhm. Moi j'ai accepté. Mhm. Nas, tu m'as grand frère qu'on l'entend depuis 2008. Quand il, je sors, chaque jour, je demande la parole. Nas qui donne accord. Ça suit Djongente euh, Lamine, Inch'Allah, qui parlait. question réponse mhm. euh, mais aujourd'hui vous êtes en direct euh, dans Dionguante euh, votre sentiment bon moi j'ai très content chaque jour parce que Lamine Samba vraiment pays Sénégal c'est pas pays Sénégal te pays monde ça cible Lamine Samba et 20 heures et 23 heures mhm. vraiment Lamine Samba ouvert mhm. chaque jour ça ouvert Lamine Samba Mhm. pas complexe. pas complexe pas trisé. Mhm. ça donne qui parole chaque jour ça civre <laughs> ok. man ko mooy. yàlla gudd fan. <laughs> man Assane kii de mais aujourd'hui euh, c'est le de la femme de Aziz Ndiaye on a parlé de ça mais vous voulez exactement quel combat. moi j'école Toi, quel non, combat quel tu veux combat, qui combat qui, comme... Tu veux ton ou bien ton combat contre Khoyantan combat la actualité Sénégal. Mm. ki Balla Gaye Boy Niang Eumeu Sène entre euh, et petit c'est le euh, combat pour l'instant Sénégal. Mm. le combat qui intéresse les Sénégalais. le Sénégal y a trois des combats moi je suive Gouye Gui Eumeu Sène Boy Niang Balla Modou Lo Ama Baldé. Hmm? tu vois tu vois Eumeu Sène toi. toi qui tu es Eumeu Sène yeah. Eumeu Sène il a battu deux fois. il a Eumeu Sène il a battu Balla Gaye il a mais Gouye Gui il a battu Eumeu Sène. toi tu peux battre Eumeu Sène. c'est très dur il a battu Eumeu Sène. toi. pas question non je parle de Gouye Gui Gouye Gui peut battre toi. y a des promoteurs qui donnent combat. mois j'ai préparation qui sérieusement États-Unis il six mois retournement Sénégal. waaw saa siivu guy gi. parle qui bat Eumeu Sène. toi mais tout de suite le promoteur Jam Production a dit. que il peut te donner ton combat moi j'ai promoteur qui donne combat. qui parle qui États-Unis waaw au passage Soleil la Yamou Ndiaye la uh-huh. Ndiaye. au des camps des États-Unis uh-huh. il y a camp uh-huh. chaque jour vraiment qui réserve bien. chaque jour qui demande la parole. y a main. Mm-hmm. y a image. Mm-hmm. chaque jour ça suivre image bien. Mm-hmm. chaque jour c'est pas ju ju ju jikko négatif. chaque jour positif. y a frère de Aziz Ndiaye Laye Ndiaye. et gars bien. Yamou Ndiaye gars bien. sa préparation États-Unis retour au Sénégal. et très dur. mi ka moi qui battre Eumeu Sène. mais Eumeu Sène il est très fort de. Eumeu Sène. y a des pires lutteurs lutteurs de Sénégal. pour le pour le fort du lambu. kii ah. Eumeu Sène. Ah. c' est logique moi j' accepte kii fort. mais tu acceptes que Eumeu Sène est très fort. non chaque jour maa de parler qui donne ka qualité mm-hmm. pas logique. Mm-hmm. moi j'ai pas c' est pas cœur de méchant. Mm-hmm. moi j'ai pas de cœur de méchant. mais moi je parle chaque jour te Sénégalais regarde bien. kii combat Eumeu Sène guy gi ça donne. incha allah battre ki force. y a des jeunes le 10 10 juin 86 au Thiénaba y a des jeunes. moi de mange bien. Hein. dors bien. Hein. ça travail entraînement matin soir. et tu prends des protéines aussi. non non protéine tu as laissé. tu as laissé ce n'est pas bon. protéine c'est pas bon. ce n'est pas bon y a des y a y a des loses y a y a des dernières ou bien 2015. Hum. Où, ah y a des candidats de chaque jour TFM oh le ministre mangé Balla Gaye oh, guy gi regarde regarde dans la écran là comment comment sont tes chaque jour t'as des euh, parlez moi moi j'ai regardé toi chaque jour parlez guy gi yaa ah, guy gi c'est pas c'est yaa guy gi c'est miscelin yaa guy gi yaa c'est facile ku tu as laissé la dopation non pour pas dopation moi j'ai comprendre quoi dopation dopation c'est ce que tu as pris pour que tu dopation qui drogue <laughs> dopation ou bien ou bien protéine c'est pas. même chose même ça pas même chose. il y a deux différences. Mm-hmm. ok. Mm-hmm. moi donne que protéine. Mm. c'est pas euh, c'est pas masse normale. Uh-huh. c'est y a overdose. overdose.